a ah, daw eh maire booy lu ma ñëwee ñuy daw mais maire booy ay tapet lañ ko waa c'est ah booy desal ma mburu maa ngi ñëw desal ma de ma maasal xoolal nag damay ñëw rek waxtaan si waaw dama lay jox dara dama lay jox dara loo loo jaay nii. da lay jaay. dafa jeex. déedéet des na. ah naka jus bi. jus bi waaw ne ci rek xanaa góorgóorlu. fi nga koy jaayee fi nga koy jaayee. sama magasin ngi nii tege uh-huh. waaw. naka liggéey. sant yàlla. góor baax na jigéen baax na te damaa gis senegal jigéen ñu danoo am jom. jom bu rëy kañ bu baree baree bari waaw di def ba mu baax rek di guddee tëdd di teel yeew di def ba mu baax bañ ku ma yërëm nag liggéey rek laay def dóor waar. maa ngi ci jus maa ngi ci nambay maa ngi ci ton bi maa ngi ci lépp daal ci barki Seydina Mouhamed. lépp dina baax incha allahu rabi yàlla nañu suñu borom. noo tudd jàppale ñu soxna Moumi. soxna Moumi tudde naa la maa pis borom la mu bi barki yonent bi yox la soxna moomi dukkure yox la daba yox la eh pardon waay grand rasaman waay grand pardon rek taxawal am na am solo eh kilu biyaay biyaay grand maa la faawoon barki maam Seera Fall maa lay gis nii gannaaw dama laa fan woon na fan bi may doon booy moo sa réew di fuwal ay ñaar tali moo sa réew non yaa ngi fuwal ba léegi. non léegi vétéran léegi yaa ngi géré booy. waaw léegi gis nga waaw beneen saa nii xam nga rek maa si affaire yi mais si beneen côté bi daal. grand yi amoon nga ci tur. waaw sant yàlla. est-ce que am nga ci xaalis. dërëm mais sant am naa si nit te looloo fa xaalis. léegi lan ngay def. non man maa ngi faxas. yaa ngi faxas faxas si ko. faxas si ko. yaa koy gérer actuellement man maa nekk si boppu affaire yi quoi xam nga waaw maa nekk si affaire yi quoi xam naka moom sa réew est-ce tur ba mu amoon est-ce que dayoo ba mu amoon jour yu mag ya fa nekkoon est-ce que loolu mi ngi fi am waaw tur bi moom du mës day. waaw mais jour yi daal moom may xaw a jaaxal. mais tur bi moom moom fit ba waaw ak sañ-sañ bi waaw xam loolu daal moo si xaw a manqué tuuti mais mu tur bi moom moom du mës sa dañ moom. mais ñoo ngi defar nag. waaw ñu ngi defar ay xale xam nga booy ñu ngi commencé suñu ay jarbaat ñu ngi commencé ñu nekk si équipe bi xam nga ñu lañuy jàppale xam nga côté man maa ngi si côté culturel bi xam nga si côté. mais grand bi yaa ko waroon yor côté sport xam nga ku nekk la yàlla di baaxee rek peut-être dama ko daan def football bi mais léegi laa gënoon bëgg. ok xam nga léegi moo nekkoon sama sama sama daal sama nuñ ko mën a waxatee sama. sa passion sama passion te ba léegi mooy sama passion. waaw tëgg bi moom dama dafa nekk sama xol quoi xam nga uh-huh. waaw fóol nag yàlla mayoon na lu ma si mayoon mais xam rek waaw moom loolu jeex na daal mais maa ngi lay bëggee waaw xamal ni sa fans bu mag a taxaw di maa bi ma lay mujjee gis ñaari tali moom sa réew bi ngay mujjee dugal booy yi bokk ñaari bal yu xonq yi kon maa ngi lay bàyyi 2007 a 2007 2007 laa lay mujjee gis ci stade dëgg la mais kii sama waay la moom daba pourtant fa yee ñoo leen seet si woon foofu rek uh-huh. waaw e eh, booy bu mburu mi billaahi bu mais bëggee naa mais ñoo ngi ñoo ngi ñoo sant yàlla nag ba pare di la bëggee si liggéey bi waaw liggéey bi moom gis nañ ko xam mais nice na trop jàpp bañ a bàyyi waaw affaire la demee waaw jaajëf bi yaay bëggee la grand jaajëfate booy booy booy booy yow waaye desaloo ma waaye nga coob beret bi ba mu jeex nii ah daaba desal nañ ma bopp mburu <laughs> damay wër ni yoo caméra bi di dox di laaj nante yi di laaj booy town yi di laaj waa town bi naka town bi. <laughs> town baa ngi nii daal dara doxul. ah dëkk bi doxul. waaw financement yi euh, joxewuñ ko dëkk bi doxul. projet yi est que am na. waaw yi dara amul ñun amuñu liggéey ñu ngi nii joxewuñu joxuñu ñu dara. dara joxuñu ñu ko ñu. maire bi financé wul projet yi. joxuñu ñu dara financé wuñu benn projet man Awa Ndaw mooy sama projet Latifal. mooy sama projet man. salon Latifa salon Latifa lekkul dara bàyyi ma. maak sama jëkkër lu mu am jox ma ko. maa ko gënal sax ñi mu bokkal ndey ak baay lu mu am jox ma ko man kooku mooy maay jabaru buuna man kooku moo may mooy sama papa daal mooy sama yaay. waaw mooy sama goro mooy. noo noo tudd. man Faye Ndiaye laa tudd. Faye Ndiaye madame Buuna madame Buuna. madame Buuna. daaba kaay Faye Ndiaye desal na ma mburu man sama yoon nekk si faral ventilateur bi man damay dug man fii laay taxaw du génnuma war na yàlla génnuma fii laay taxaw. Eh, yëfu Grand Dakar yi xoolal yëfu. man booy Grand Dakar yi mooy lan. noo def. maa ngi nii rek. fi nga dëkk fii laa dëkk waa fii laay. affaire affaire yaa ngi nii. Ah, kaay kaay. man ma may Sarr laa. fan nga toj. fi ma toj bëri na de HLM fépp laa toj. noo tudd. man Yaama. Daba waa kan wi joxe nañ seeni kàddu. léegi nag dañuy dem tester si possible le premier magistrat de la commune ñu xool ndax moom il est en mesure de parler moom it mu yëkkati kaddu wala mu tontu ñi nga xamante ñoom ñooy askanu HLM mu wala parole wala verbe wala phrase yi nga xamante ni daal nañ koy wax jëmale ko ci doxalinu HLM moom la ñuy dem seeti tester bu fa nekkee ñu wax ak moom bu fa nekkul ñu xool ko ko jege mu wax Daba Kam. waa Daba ñu ngi buntu commune des HLM hôtel de ville. yaa ngi dégg ñu def république du Sénégal un peuple un but une fois léegi dañuy dem testé xool et eh, publicité lu ma leen def pousse leen ngeen bëgg ku leen publicité naan lépp <laughs> dañuy xool ndax maire mi ngi fi parce que maire waa quartier bi wax nañ le ay business yow app après da ngay répliquer come on <laughs> baa booy siyaar nañ leen aj 5 mars bàyyi seen aj bi jeex. yéen yéen seen bi yàlla nañu ko yokk na nga def. ça bien. yaa ngi sant bu fi ngay liggéey. bi mi ngi fi. waaw mi ngi si kaw. fan la bureau mère. deuxième. ma ah. wala bàyyi ma njaab bu dee da ngay teg xel bàyyi ma njaab ah. dama lay tegal rek. boo ah, eh. tabaski ah <laughs> jox leen ma sama wàll ci tabaski bi laa bok asalam ma jox la sama carte ma jox la sama carte d'identité yéen bi day may ay xaalis yéen maire bi baax na di waa kàcce bi naan day lii dafal nii ma xool yow daba daba eh defal nii ma def nii yow daba maire baa ngi job de maire bi day maye ay monin ah maire baa ngi maye ay monin de waa doom baay maa ngi ñëw sous alarme surveillance vidéo kon fii kuy lu waay di def rek na ko xam. jàng bi bàyyi ko dégg nga yow biñ leen ngay bandi bandi lu bàyyi ko. <laughs> sumiwuma temps yi sonn ngeen de temps yi Real sonn na temps yi ay masinil rek temps yi moom da ngeen di masinil rek. soo alarme. salle de réunion du maire. tëj fay leen seen portable kaay. secrétariat secrétariat du maire. Mounou Mbaye arrêtel coupé. zaren dab asalaamaaleykum maasa si aar naa leen de affaire bi yéen la barki rasulullah asalaamaaleykum père bawer père micro bi ma avertir de damay bañ avertir ba quoi père bu ma jox avertissement non naa la bu yàgg daba war nga xàmme père ci làmb ji la nekk Père Babacar arbitre maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar Modou Mbaye. yaa ngi ci jàmm. waaw sant yàlla bu baax. lan ngay def. moi je suis conseil municipal ici. waaw nekk secrétaire élu. nekk un proche du maire. Ah oui. ah loolu de loolu de wax dëgg yàlla moom waa làmb ji xamuñu lool de. waaw oh, am na ñu ko si xam nag ah am na ñu ko si xam donc euh, on est là il y l'équipe du maire. Mhm. donc euh, chaque fois on est là on règle les affaires courantes. toog waxtaan ak moom échange ak moom. ci vie commune bi daal. ok voilà. salaamaaleykum papa maire. papa maire maa ngi maa ngi lay siyaar. maa ngi ya noo papa. man Babacar Seck laa tudd. Babacar Seck. waaw xam nga nuyu sama yeneen papa yi maa ngi ñëw. <laughs> papa maa ngi siyaar sant yàlla alhamdulilah sant yàlla salaamaaleykum. papa maire ñëw naa. Ah, <laughs> papa mère daal man damaa génnoon nekk ci askan wi. Ah. doon waxtaan ak ñoom. ñëwoon naa fi ci veillu tabaski bi. naa en avait parlé sax ak suñu père Babacar keroog bi ñu dajee làmb ja mais suñu grand Dabo aussi nekk doomu HLM. suñu grand Madi tamit nekk doomu HLM ñoo ñëpp di di œuvrer pour HLM jëm kanam. bismillah bismillah ñoom ñëpp ñu wax wax ci doxalin bi ak liggéey bi ngeen nekkee fii déjà ci côté tabaski bi gars yi kontaan nañu woon parce que ne nañ dara lii da ko tëjoon yaa ne kenn du jaay fenn affaire yi yooyu yooyu après par la suite il paraît réglé nañu ko ba gars yi commencé nañu waat liggéey beneen bi waaw déjà ci loolu la ñu njëkk wax ba pare lan nga ci wax. mais loolu man maa koy soog a dégg ci yow. Ah, ñoom ñoo ko wax te sax sa sa gars yi seetaan nañ ko ah. waaw mais de man de yëgu mu xaman fii nag sa ay boo boo jiitee nag doo bañ ñu ne yaa wax mais na nekk rek nga bañ a wax man aw ma droit kenn du jaay li tax aw ma droit ne kenn état bi moom moo décidé tànn ay tali gouverneur def arrêté ne fii la ñuy jaayee mënuma tere ku fa jaay mais mun naa nag organiser ku fay jaay parce que dañu ne fi ñuy jaaye maire bi moo koy organiser donc loolu loi bi loolu la ma jox man lii ma loi bi jox laa laa exercer ren def nañu piir dañu woo xale yi nekk HLM di jaay ñuy leen ñëw leen ngeen arrangé parce que ñoom presque ñoom ñoo organiser affaire bi foofu fekk nga fa ay bâche ñoom ñoo ko fa def man defuma fa bâche man tegaluma kenn bâche donc ñoom lañu ñu jëkk a jox ñu jël fa ñu daan jël kenn laalu ko fa ñu am habitude di di di teg bâche dañ leen ni fii xale HLM ñoo fii jaay kenn du fi jaay kudul dul ñoom donc loolu lañ def bon bu ñu ne man dama tëjoon booy tëj lu ubbi ngay tëj lu ubbi ngay tëj man yëguma fu ñu ko tëjee. beneen bi dañoo jaar damaa jaar ci koñu police bi ñu xool état état tali bi état koñ bi foofu ni mel mu nekkoon ci benn état bu xaw a doy waar mais ba booy nekkoon foofu sax kaas ñu ne maire bi moom liggéeyul koñom rek lay liggéey liggéeyul suñu koñ yi quoi léegi yow loolu. <laughs> dëgg <laughs> ñoom fi ñuy juumee bu ñu ne maire bi ba pare ne koñom koñu maire bi mooy koñ yëpp. boo xasee ba ne maire bi rek koñ yëpp mooy koñam man duma ma tànn koñ loolu ñu wax nag dëgg la tali boobu moo ni mu mel baaxul mais mu ngi ci programme bu tali boo jëlee HLM bi ñuy defar tali yi ville de Dakar moo arrêté woon programme bi ak maire bi fi jóge woon maire bi fi jóge woon dafa am ay tali yu joxe woon man ba ma ñëwee ma ne nañu defar tali yëpp. mais bu ñu nee nañu defar tali yëpp dafa am fu ñuy commencé donc bu ñu commencé HLM 1 teg ci 2 teg ci 3 teg ci 4 fenn rek la erreur amee parce que HLM fii doo xam doo xamee rue yi dañuy wax rue 152 quarante deux rue cent cinquante 151 alors doo mun a xam rek mais bu ñu tuddee woon rue comme ni ñu envisage pour def. parce que dinañ dindi loolu. koñu police ba daal lañ xam ne moom am police ba ngay wax mu ngi ci programme bi. mais programme bi yéexul ndax nawet bi déjà ñi ngi ci. nawet jeex na sax day jeex. mais xam nga defar tali ci nawet déjà mu jëkk difficile. beneen bi concessionnaire bi defar tali dafa am benn produit bu muy utiliser moo ñàkk boo demee tey fu mel ni Gueule Tapée bu ma naan Gueule Tapée boo demee waaw Gueule boo demee Fass. taliba gas nañ ko def nañ yëpp def nañ sax premier couche bi mais ba tey jii ma lay wax mënul defaru parce que produit boobu su amul kenn defar tali bi maintenant tali bi jóge ci police bi maintenant dugg dafa am beneen radier la lañ ko tuddee kooku du doon kii kooku dañ koy cimenté mooy tali boobu nga xam ne mooy jógee ci boo ñëwee ci jee boo rombee police bi dem ba ci biir nga jàdd romb pharmacie bi tali boobu mu ngi ci programme bi li ñu mën a garantir population bi di si en tout cas la fin de l'année presque tali yu bëri dinañ leen defar bi cité port tali yi ni cité port dañ koy defar tali yëpp yëpp yëpp malheureusement bu ma yëgoon ne da ngay ñëw dama lay won listu tali yi ñu defar yëpp wala boo gisee Thierno Ndoye moom dina la jox tali yi ñu defar yëpp nga xool li ñu defar ak li ñu dese donc côté boobu moom population bi wax nañ dëgg mais nag du ne maire bi tànn fi ñuy defar concessionnaire bi defar dañ ko jox tableau mais xam nga dafay yomb nga commencé di defar tali ngay wàcc si wala nga yéeg loolu mooy problème mais du lu ñu taamu du lu ñu taamu gis nga suma buntu suma koñ boobu ñuy wax muy koñ bi jëm ci église bi amul lu ma ci déggul même keroog bañ koy defar dégg naa ñu ne sax waxul dëgg. koñ bi léegi koñ boobu liis na de. ah waay bañ liis day ah, loolu mooy yoon. loolu mooy yoon maintenant bu police bi itam dina liis parce que bu HLM 1 liis na bu 2 liis na pourquoi bu 3 du liis parce que maire bi dafa dëkk fu maire dëkk daal waruñu koo defar lu tax maire maire tam client laa comme ñëpp di. habitant nga moom riverain nga dëkk ci laa bokk riverain laa. Ah, maintenant nag su fekkee dañu bëgg nag lépp lu ñuy def ñi dëkk ak man du am am na benn xale bu ma ne woon maire dafa ñëw ba këram mu taal lampe bi. te meer taalul lampe bi dama fekk ñu taal lampe bi alors donc gis nga li ma la doon léegi tali yi yëpp def nañ ko. situation des routes déjà faite. nii donc xam nga kii. waaw waaw. HL entre HLM 2 HLM 3 defar nañ fa rue 128. waaw HLM 5 defar nañ rue 224 272 ak 250. waaw nga ñëw ci lumière. ma ñëw situation des points lumineux cité des eaux point B HLM montagne mosquée Imam Sarr sortie montagne vers HLM Bourguiba 3 HLM 1 defar nañ rue de de 42 ba waaw yéeg na ci kaw bari na HLM 2 3 4 ba cinq yëpp c'est c'est lépp a leer. taal nañ leen. fépp fépp fépp a ngi daal. xam nga lumière yëpp leer na. waaw te dañu waxoon ne maire bi dafa taal rek lampam. waaw taal. voilà maire nag du taal koñam. dama bëgg ñu xam ne koñu meer koñ yëpp koñu meer la man aw ma koñ bu ma moom fi ma dëkk fa laa dëkk mais koñ yëpp sama koñ lañ parce que ñëpp ñoo bokk ne ma yaay suñu meer donc aw ma droit defar fii bàyyi fële. beneen bi. gars yi nee nañu du ñu gis monsieur le maire sur le terrain monsieur le maire si bureau lay toog taal climatiseur duñ ko gis mu wàcc sur le terrain ñun daal ñoom daal mais man xaw naa faa tontu sax ne monsieur le maire ces portes ne sont pas fermées à la population ñëw leen ngeen wuyu si ko mais ñoom nee ñu soxla wu ñu ñëw dañu soxla monsieur le maire ñëw vers ñoom. mais man defe naa ne ñooñu ko wax bon dañu xàmmewul maire boobu man toujours maa ngi ci mbedd mi. parce que waa sax nee na xàmmeewu la. Ah, waa ji nag man maa ko xàmmewul <laughs> da nga ko naan bi nga ñëwee foo ma fekk ci bureau bi. fii nii nga toog ci fauteuil bi laa toog fële. fële sama secrétaire nga ne li may toog fële bariwul xam nga lu tax dama gëmul bureau man gëmuma bureau man homme de terrain la man mbedd milaa xam loo ma laaj ñoom seen koñ yi sax xam naa fa ñu xamul man guddi ba deux heures du matin maa ngi ci biir HLM di wër bëccëg maa ngi wër amul kenn ku la mën a wax soo demee ci kër laajteel. boo commencé HLM 1 HLM Cité des Eaux HLM Montagne ba HLM 6 foo fi dem boo laajtee ku la naan xaw ma maire bi bariwul dem nañ ba di ma tuddee en même temps ñu may tuddee maireu marché loolu moo tax ma bàyyi marché bi ah. parce que marché bi buggoon yàq sama publicité ah. parce que su dama doon xëy foofu parce que fa la déere yëpp nekkoon ma defa dem di fa dem di mujj gi nit ñi comprendre uñ bu mu buggee génn HLM fooy jaar centre de gravité bi marché bi la donc il fallait ngay jaar foofu mais amul koñ bu ma dul dem man bureau bi du ma fi toog bureau bi soo fi dee ñëw du fi toog te awma audience nag du ma joxe audience. Ah, man de léegi soxla gisuma. doguma la ku ñu jël fii en face Madiaye Sall mu ne banc yi ñu def espace bi ñu def ci ci ci après tali bi maanaam seen buntu kër yi espace bi ñu fa def arrangé wu leen parce que banc yi ñu teg foofu ay nit la ñoo fay ñëw yoo xamante ne ni de mauvaise intention dañuy ñëw foofu di def lu leen neex ci seen buntu kër yi ñoom ils avaient écrit une lettre sax jëmale ko ci maire bi mais après dañu leen pour ngeen gis maire ay audience ak yooyu la laaj c'est un vieux moo ko wax. mu ne dañu bind ko vieux boobu vieux boobu dëkku fi. parce que la bi daal dafi depuis 82. non man bu fi dëkkee depuis 82 man toujours maa ngi foofu loola ko naqadi foofa moom war na xam ne man ñëw naa fa wax ko man ñëw naa fa bay dindi lu tànt samay collègue a ngi nii. am na place bu ñu ma ne ñu def fa ay banc ma ne kenn du fi def banc waaye nag dafa am ñaar nag mooy buntu kër ku nekk yaa moom sa buntu kër maire du gàddeel kenn buntu këram lu la neexul sa buntu kër kenn du ko fa def su fekkee banc yooyu la wax leen ne leen maire ne na ngeen ñëw ñu toog ñu wax ci mais amul amul kenn musuma bind wax ma banc man tout le temps maa ngi foofu boo demee ci jaaykatu kafe ba ak kooku doon defar nen yi foofu ah. kooku xam na ma ah oui dama fay jaar <laughs> mais mais laaj ko sama jaar lan la fa ah. sama jaar ah. su ma yegsee dindi sànni ak ramas am na koo xam ne ci benn bayal la ne fa lay jaaye ay ay ay ay ay téléphone ak hmm. yëpp jaaykatu banaana ba yépp dem naa fa donc foofu xam naa ko kooku wax nag ne ay bank am na itam ñaar nag am na itam ñaar xam nga nit ñi ñoo war kamem xam ne bu ñu leen defalee dara ba ñu defee dara ñu surwaye ko foofa nga xam ne dafa am ñuy toog ca maaya dafa def na ko sulu noonu suñ ma ko signalé ma jëlee leen fa mais nag comme ni mu wax du ma gardeel kenn buntu këram xale yi xale yi xale yi nañu constituer koñ bu nekk ñu def fa seen police garder seen koñ defar seen koñ loolu mooy cité cité ku nekk da nga ciy apporter sa contribution ñun bu ñu defaree ba mu baax ñu ngi dem bay wax ne jardin bi bu ñu ko defaraatee bu baax gën a baax dañuy wax maison yi kër sangam kër sangam kër sangam ñan ñoo bëgg a nekk volontaire pour gérer fii parce que il faut nit ñi gérer ko. il faut ni ñi gérer ko. parce que lëf boo ko moomee doo bàyyi kenn yàq ko. HLM y a beaucoup de choses. moo tax gis nga parfois boo duggee da ngay gis ay jàkk ñu fa def ay jàkk. waa jàkk yu nga xam ne ki màndi ñëw ba foofu mën na fa taxaw saw fa du maire moo koy tere ci tabaski bi ci tabaski bi bañ fay yeew ay xar lan moo tere ña fa dëkkoon ñooñu bu kenn yeew fii xar maire mooy ñëw di tere ku fa yeew xar loolu itam du yoon donc il faut kenn ku ci nekk jël sa responsabilité maire nag il faut nit ñi xam ne dafa di ku ñu ne rek capitaine d'équipe rek la maire du du dafa jiitu rek. voilà moomul. dama jiitu rek mais moomuma comme nag li ma jiitu ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ci nekk boo gisee lu yàqu ñëwal wax ma man saa bu ñu duggee suma bureau ne ma lii ma boole la ak agent na demal ñu réglé ko léegi maintenant nag lu ma yëgul yëgu ma ko tey laay soog a dégg ne ban yooyu ban yooyu am nañu ma porté préjudice waaw ah. ah, mosuma ko wax mosuma le mosuma ko gis te te dinaa fa doxantu nag incha allah dinaa doxantu. loolu lañ ciy xaar mais mais mais maire ginnaaw ba répondre nga ci question yi nga xam moom la population bi wax léegi ñun anta ci suñu liggéey yow maire lan nga jot a defagum fii. fii nag li ma fi mu ngi bëgg a bari bari na bariwul daal xam nga maire il faut déjà ñuy leeral suñu démarche man bi ma ñëwee nekk maire dañ ma ne maire de commune maire de pleine commune de plein exercice nga ma ne waaw bi ma ñëwee sama budget. yokkuwul parce que dama egsi li ma jëkk a def mooy dama dëkk HLM daan dégg tawatu HLM mu doon marché bi nekkoon ci avenue Cheikh Ahmed Bamba kenn musul noyyi foofu. mooy fan. bi mooy Cheikh Amadou Bamba bi. Ah, ok ci avenue bi. waaw foofu boo daan romb. Oh, da ngay defe da ngay defe ne ci dëkku indien nga nekk. mu ngoog ay mbaar ay morceaux yu ñu yeewa kenn mënatul woon jaar foofu waa koñ ba ne ñun dañuy liggéey bu nu wàccee sept heures du ñu am fu ñu gaare suñu oto du ñu am nu ñuy duggee suñuy kër bu ñu yeewoo fajar ak suñuy doom du ñu am fu ñu jaar dañuy fakastalu ci ay kees boo amee ku feebar du génn boo amee ku dee doo ko génne lu dul guddi ñu dem bu guddi sax mënatuloo génne niw da nga koy incliné wala ñu nguufaan ko pour génnee ko parce que yëpp dañ ko defoon bi ma ñëwee mu jëkk nekk sama problème ñu dindi leen fa mu kuti ñuy li mu ñoon kuti mais waxoon nañ ko ne nañ leen fi jëlee ñu jëlee leen fa xanaa loolu benn la ñaar bi ñu ñëwee ñu ne école yi école yi ñu ne li intéressant mooy niveau école yi dafa dafa tuuti woon pourcentage bi ñu doon am ci njàng HLM ci ñu gënoon tuuti la la bokk ñu consacré wu ci loolu ma jëkk ñëw école yi fi ne yëpp ma jëndal leen imprimante laser imprimante bu nga xam ne en même temps dañ ciy photocopier dañ ci imprimer pour mun di jàngale parce que léegi élèves yi ci ay polycope la ñuy jàng ma def loolu ñetteel ba ma ne fourniture élèves yi li gën a métti ci parents d'élèves yi mooy fourniture fourniture du ñëw rek nga jël ñaari kaye ñetti kaye dama dem ci école bu ne directeurs yi ñoo bind li élève bi soxla élève bu ne ma jox la sac en fonction niveau école bi classe bi nga toll jox la équipement complet waaw man joxewuma ay ñaari kaye dama leen jox lu ñuy soxla yëpp laa leen jox. élève bu nekk élève bu ne. ci école bu ne. ci école bu ne. waaw ren ma yokkoon la ci parce que loolu ci projet la bu fi nekkoon. Mhm. bi ñu duggee ci salle de classe ñu gis ne classe yi. dafay tàng tàng bu nga xam ne élèves du ñu jàng ñu commandé ñu commandé ay ventilateur ñu commandé ay ventilateur ventilateur yi ñu commandé ñu ne classe bu ne na am ñaari ventilateur mais bu du yem ci ñaari ventilateur parce que école yi amuñu woon toilette ma xëy suba ma def tuuru école yi maak sama xarit yi ñu ngi commencé dix heures ñu ngi pare 17 heures wër école yi école boo ci dugg amul toilette xale bi bu duggee ci douche bi. ci état ba mu nekk ci état ba mu ne baaxul. ñu ne loolu nañ ko defar ñu defar ko xale yi amuñu fu ñu naanee ndox parce que benn robinet mooy nekk ci école bi ku ci génn classe da ngay def nii pour naan mu ngoog ñu ne loolu waratu fi am bu école ubbee na nga ñëw. nañ la invité nga ñëw nga visiter classe yi. yi nga wax ni yëpp parce que salle bu nekk. danañ fa monter ñaari ventilateur hmm? ventilateur yaa ngi fi toog di xaar. classe bu ne danañ fa teg bassine bu nga xam ne élève bu bugg a naan dootul génn classe bi. Hmm? day dox ba ci foofu. fontaine bi bu am robinet waaw. ci classe bi xaaral moo la des na te loolu. loolu li tax monté wuñ ko ba léegi am na it leneen. fii nag dafa am lu fi xew. lu xew bandi yi tokkati yàmba yi ci école yi la ñuy fanaan di toog yàmba risque boobu nag mun loo jël ay doomi jàmbur ne dem leen garde ji suñ fa monté woon ventilateur yi léegi ñu sàcc ko. dañ koy donc léegi ñu ngi seet itam loolu naka lañ ko mën a garde pour jël léegi ay jeunes ñuy fanaan ci école yi di garder école yi bi ñu ñëwee santé bi. ñun jox nañ leen naka la tuddati. Euh, subvention. non subvention du noonu sax kii la naka la tuddee waaw jox nañ leen jox nañ leen ay garab yu ñu soxla recruter nañu itam personnel pour jàppale leen loolu bi ñu ñëwee monté nañu comité de santé yi gérer nañ côté boobu. mais li ci des itam ci santé bi mooy lan léegi am na ñu ay partenaire fii may wax ak yow nii am nañ partenaire mu nga xam ne ñëw na barke démb am matériel bu mu andi mais xam nga foofu itam coono beneen day dugg parce que tey la ñu bind lettre bi nga xam ne ci la ñu bugg ministre de la santé defal ñu exonération pour ñu mun ko jox santé bi. Diouf Sarr. waaw Abdoulaye Diouf Sarr. léegi mais nag monsieur le maire bi gën a garaaw. Oh. mooy booy footballeur yi nekk asalem nee nañ seen terrain bi seen stade bi yéen daal xam ngeen yéen lan ngeen si mën ah. at bu jot ngeen toj miir bi tabaxaat miir bi ah. nee miir bi yéen koy daaneel ah. yéen koy tabaxaat nee nañ ci côté sport bi gisuñu benn yokkute boo xamante ne ni am na ci école comme tu dis terrain bi terrain bi dëgg la terrain bi moom fekk na ma sax ma nekk un petit conseiller terrain bi dafa yàgg trop trop trop mais li ci laxasu moo bari mais ñu ñëwee ñu non non non non attends ñun biñ ñëwee daal def nañ leen mooy Socabek biñ ñëwee daje nañ moom mu woon ñu ne am na volonté pour jàppale da ngay tabax ay cantine boo tabaxee cantine ba mu pare ci sa bénéfice nga soog a tabax stade donc ku jaayagul cantine nag du mun a defar stade mais ñun ñu tourner affaire bi demandé ko léegi ñun suñu problème mooy dootul cantine ñun stade bi lañu bëgg ñu defar ko ci loolu itam mu poussé ñu nag ñun ñu def lu ñu mun man tukki naa fi dem ñu may ma terrain base gazon synthétique maa ngi yore ñaari terrain yu ndaw gazon synthétique conteneur bi ñëw na léegi kii waat na ma euh, agence bi yore bato bi pour ne ma kañ laay ñëw fay si léegi am na benn terrain complet bu ñu war a jot tey jii boo demoon ca terrain ba Sokabek il paraît yónnee nañ fa parce que ñooy dañuy sondé tribune bi xam nga tribune bu toog huit ans terrain boobu am na léegi sept ans huit ans boo koy xool li nga wax na dëgg la mais maire daanelul mur yëkkatiwul mur li ma bëgg mooy ñun bu ñu toppoon suñu programme su fekkoon lu ñu d'accordoon ak promoteur bi defoon na ko bon tey jii ñu ngi waaj a réceptionné stade bi mais bàyyiwuñu nag ce que nous balaa suñu mandat di jeex. bëgg nañu stade bi pare. bi ñuy jeexal sax dañ doon tëj noonu mais benn waaye lañ daje mu ne boo leen demee ngeen ne meer mu may ñu ci laadumam yi nekk ci kaw. <laughs> man xaw ma ci dara mais waajee ba ko xam ah, il est habitant. boo demee boo demee ah. nit ñi lañ ma chargé pour ma toppatoo leen. bëgg bë bëgg bëgg la bëgg bëgg bëgg la. meer yow da ngaa am ay waaw bëgg naa ko trop dama bugg xar rek. Ah parce que man ki ma yar ñun boobu temps orwaar boo xamee orwaar gël tàppe dafa dem nag géej sumba juun ah. xam nga géej foofu. sumba juun ma juddoo yàggul de. moo tax <laughs> yàgguloo juddu <laughs> donc ah, donc donc sumba juun ñun ñun ñun dañ daan dem ci almeer yi. di wuti dungóor. Mm. boo ñëwee wut dungóor ba pare dañ daan ñëw gubal xar yi ñun gub nañ ba gub jaan dagg ko parce que da ngay ñëw ci almeer yi. di dagg ñun bu ngoonaan balaa nga daan tëdd da ngay dem gubali xar yi andi jox leen ñun loolu la ñu jàngal ñu bugg xar nag te nag ñu neex a dëkk lañu xar yi ah, xam lu tax ah. duñ la taraay yi <laughs> duñ la xas ah. duñ la saaga boo xiifee boo xiifee lekk non transhumé sax amul parce que dégg naa beneen laaj boo may laaj boo ma ci laajee naa la tontu eh, ñoom soo xiifee nga nga lekk soo banquee nga jaay waaw te boo feebaree ñu gàddul la sa feebar nag. waaw xar moom. Ah. baax na trop. waaw mais maa lan laa la laajul loo bëggoon a wax. déet man xaw ma ko. Ah. <laughs> maa ngi lay jaajëfal. merci lan ngay wax population HLM. mais kaddu yi. ci li ma leen di wax rek mooy ñu ñu góor góorgóorlu ñun ñëpp ñu jàppoo HLM ñun ñëpp ñoo ko bokk HLM nag laaj na defar hmm. defar bi mooy na ku ci nekk sol sa dàll. parce que fii du maire bi rek moo war a defar ñëpp war a defar lu ñëpp bokk ñëpp ci war a sumbaxloo gis nga tey pavage bi ñuy def ñu ngi koy def foofu dinaa fi expliquer ñun jëluñu ne dañuy pavé suñu buntu kër dañu ne dañuy pawe place bu nga xam ne bañ ko dindee léegi mot na ñaari at mairie dakaar bëggoon na ko pawe mu ngi woon ci programme am mais difficulté tax na pawewu ko ñun bu ñu yàlla wonelee ku nga xame nag nee na man commerçant la dama doon liggéey gis naa ni lii am na société bu ko mun defar suñu andilee société ne ñu dama bugg a d'accord ak yéen man dinaa def foire fii mais dinaa leen pawel pawage bu nga xam ne loolu mu ñu doon pawel moom li mu ñu ci laaj quarante quarante million la début bi ñu amoon ak burkinabé yi ça fait soixante quinze million beneen bi mun nañu su pawee leen pabeelee ba pare dinaa leen defaral ñaari ñetti grande mosquée yi dinaa leen defaral église bi pabeel leen ko waa je dis loolu buñ ko gisee dañ koy jël donc ñun lu ñu am mooy rafetaayu HLM HLM nag bunt la suñu kanamu HLM mooy avenue Cheikh Ahmed Bamba dinañu fexe ba mu rafet buñ ko defaree ba mu rafet lépp lu fay ay mbaar ay lii ñu dindi ko mais il faut nit ñi d'accord ne maire capitaine d'équipe rek la capitaine d'équipe nag du génne joueur du déplace jour te moom mun nañoo tekki kenn te moom mën nañoo tekki brassaaram jox ko keneen voilà léegi nag temps bi ma takkalee brassaar bi hmm. ci laay góorgóorlu rek mu bugg xool yi nekk benn ñu jàppoo ñu liggéey hmm. waaw loolu daal laay ñaan nit ñi ñu juboo et puis góorgóorlu nag je pense que HLM neex na defar ci kaw ñun ñëpp ñu jàppoo nekk benn corniche baa ngi nii ñu ngi koy defar ñu ngi ciy def lu ñu mun def lu ñu mun dinañ def daal suñu kéemtalaay kàttan ba fu suñu mandat di jeexee nag yàlla nag moom moom li ci des dañ ko koy bàyyil nag. jërëjëf mbokk yi Sénégal gis ngeen kàddu yooyu nga xamante moom la maire mu wax moom kàddu yi nga xamante ne waa askanam wax nañ ko moom tamit mu bëttiku yëkkati ci kàddu kon mel na ni yéen waa askanu HLM leer na ci seen bopp moom tamit dégg na kàddu yi tontu na leen ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax ni la demee yamuñu fenn dañuy dugg fépp ba yéen waa Tamba noonu sax bu meer bi di déconné noonu woo leen ñëw ñu taal sunu oto taal sunu caméra ñëw foofu ngeen wax seen mébét wax seen jàmbat moom mu tontu ci wala moom mu jéem ci xool ay solution ni la demee lépp rek ngir bëgg Sénégal dox Sénégal ni lañ ko mën a defee waxtaan rek moo mën a tax jàmm am ci réew mi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tumuroo am na tum est-ce que ma dem Grand Dakar Jean tonton Jean bu Grand Dakar préparé j'arrive a xale bi warul sër waay. sër waay le double bi. double bi double bi. ñu dem ñu dem. ñu dem. aha aha aha. right. gisatuma kenn woon di sër ñoom ñëpp bëgg jëkkër du mën a jigéen waaw góor waxal moo ko waa kumba kumba ci supermarché sa naturel ba bobba na njàmbe ba ci mbomb kenn du fa teg leket xam nga xamoon na jiin day wàññi ak li muy wone lépp sa dafay yokk kumpa lancement wu film bi la yàlla boo dee bool sa ndigg digg yoor yoor dox ndànk sa tànk yëkkati suufu joor mbool amul Dakar kon mu may la joor soo da maam ma jàngal xale yi nu ñuy taxee sër dërëm sa lafu sër suñ la mayee takk fa laf ca xale bi fi rabal nekkoon jógu fa wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa wodul wodul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa wodul wodul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng tàng la pluie est maintenant comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër ñun dañu sonn ci léggin si Rihanna ak Beyoncé na ma gis Aïda si kër di boor ni ñuy sañse dem tool am fii waaye ñu ngi lekk kemb ci suufa garab teg ataaya maa ngi maye caaya ku ma ni ngay doxe di daagu dégg naa ko samay bro kon statut freeze ma selfie please lu yàgg ne kumba kawlo léegi ñu fëgg taxal sa sër nga fecc baaw kër man bi ay pantalon la ñuy jaay man sër laay wër lu mu jaar ma jënd na gàtt nopp laaj tuur na diw bi waxal sa sër xaan bay way la lab cat xale bi fi rabal nekkoon tuur fa wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa a woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal a piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi ñu dellu démb feccal feccal feccal lépp baax na feccal feccal wodul wodul feccal feccal wodul wodul feccal feccal wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul woddul may ma la pluie maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd wodd wodd wodd kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul woddul may ma la pluie naa raar comme jigéenu xale yi sër